ci réew ak bitim réew waa li neexul ci wasaare lam saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Pa Abdou Fall sa soog ba mu taxawal diggante Papa Sow ak Siteu l'arène explosera avec Siteu et Papa Sow loolee la sunu làmb xamle moom Pa Abdou Fall ca boobee ñëw na ca ca na mu gën a yaatoo ñëw ca làmb ja combat ya ak VIP ya je compte organiser un autre grand combat beneen combat bu mag soog bu mag mu ngi ci sama xel maa ngi koy lijjanti Papa Sow ak Siteu rekk fii VIP bu taxawagum ba saison bi ubbeeg léegi date ba xamagul Pa Abdou Fall nee mënagu koo joxe ndax sa xel nekk na ci le roi des arènes mu ne en tout cas maag moom ñoo bokk même localité ñoo bokk fi ñu yeewoo muy Parcelles Assainies Modou Lo de boo bokkoon ak moom néeg sax boo bëggee kombaam da nga des promoteurs ba mu jiideeg beneen association des promoteurs ba juddu lii la fa xamle ñàkk bokk gis-gis taxuta dooni noonu ñoo bokk liggéey ñoo bokk bëgg-bëgg gis-gis la bokkul te duñu taxa dooni noonu ndax en doxul seeni diggante li tax gaa yi génn dem seen yoon mu ne déedéet Pape Abdou Fall ñooñu moom lu leen naqari ba ñu ber seen daara bopp ci ñun la ñu bokkoon certes dem nañ war nañ seen yëfi bopp waaye loolu en du ca juddoo ndax loolu du dara àdduna noonu la tëddee bu ñu jàllee ca président des amateurs Doudou Diagne Diecko moom nee na dafa mere VIP ya kasewu 150 amatu fi loole la Doudou Diagne ko xamle lamb bu ñàkkee xaalis mbër yi dañ ko war a xam woyofal seeni loxo ñoom ak fi lamb toll seen xel war a nekk sax ci laaj ci ay kase yu metti VIP bu fi laaj 150 millions daal jàppal ni Doudou Diagne Diecko mere laa xool lu weex dootu la tuddati ak am fulla rax ca dolli moom Doudou Diagne Diecko ne bu ma nekkoon tëgg kuy laaj ma bàyyi la fi lijjanti ji leneen li daal bu ko promoteur yi defoon léegi lamb ji neex yeneen lamb ya nar neex mooy la sunu lamb ñëw diggante Forza ak Reug Reug ak Elton deux socs pour sauver l'arène loolee journal ba xamle Forza ak Reug buñ ko taxawalee combat du ko dàq combat du ko gën neex Gris ak Elton ñoom ñaar ñëpp Reug Reug dalee na daan bile combat it buñ ko taxawalee danañ gis combat bu rëy combat bu neex ñaari mbër yu Forza dañ fay fekk pakala ma continuer di wone boppam pakala lan mooy secret mu ne sama hygiène de vie moo ma permettre ma revenir en force damay entraîner di récupérer di lekk lu baax li ni mel nag mbër mu ci nekk doo gaaw a màggat gone yi duñ la yóbbul dara mbër mu ci amul hygiène de vie de doo sori bu ñu jàllee ca diggante Maama Lamine ak Jokkel Maam Les coach Parcelles mbooloo moom joxe na favorim ba toog Maama Lamine est favori à pour cent làmba ka tëradi doon favori daal doon vainqueur ma ko gënal moom coach sa parcelle mbooloo bi mu ne ci Maama Lamine la ëpp yaakaar moo gën a agressif te moo gën a technique li ma gis ci jokkeel nag mooy motivation bu bari Fallou Ndiaye borom Ndiaye production moo woote le premier décembre fële ci stadium Iba Mar Diop journal ba samp laaj est-ce que Maama Lamine ak jokkeel danañ xëcc ca Iba Mar Diop diggante Maama Lamine ak jokkeel ñëpp di xaar la Fallou Ndiaye xaw ma fu mu lijjantee a toj Joal Fadiouth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 la deuxième édition du Festi Dakar, Rahu Prod vous offre une première mondiale. En exclusivité à Dakar, Gims Dadju, le samedi décembre, sur l'esplanade du Musée des Civilisations, réunis pour un moment d'exception.